takk masque yi ci biir oto yi dem beeg dikk bi Abdoulaye Diouf Sarr nee na ci lieu public yi nañuy takk masque yi Abdoulaye Diouf Sarr nee na rassemblement yi ñu bàyyi ko Abdoulaye Diouf Sarr nee na déplacement yi voyage yi ñu daal di koy teg ci suufa Abdoulaye Diouf Sarr nee na ñu tabaskee sunu kër Abdoulaye Diouf Sarr nee na ñu dem ñàkku ji Abdoulaye Diouf Sarr nee na état bu Sénégal lu toll ci cinq cent mille vaccin fii ak njeexantalu weer wi dinañu ko andi ci réewum Sénégal yéen kaay gi di ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr nee na nag jamono ji nañuy def li nga xam ne mooy télé travail ñu ne ko lu tax mu ne coronavirus bi maanaam jamono ji ma ngi jaaba jongi ci réew mi yéen a kaay gi di enquête nee na nag bu dee am na benn jafe-jafe boo xam ne moom la sunu kilifa yi am maanaam mooy nag ana nan la ñuy gérer li nga xam ne maanaam mooy Covid 19 bi ci Sénégal loolee mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu ñu dénk wàllu wér gi yaram gi am yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa opposition bi ñoom nag nee nañu Abdoulaye Diouf Sarr il faut mu xam benn mbir Abdoulaye Diouf Sarr il faut mu xam ne ñetteelu vague bi maanaam Macky Sall mooy responsable lépp Macky Sall la ñi nga xam ne nag ñooy bi nee nañu ñi nga xam ne ñooy médecins yi maanaam sacrifié nañ seen bopp def nañu lenn lu nekk ngir coronavirus bi bañ a law ci réewum Sénégal waaye nag mboolem loo xamante ni médecins yi liggéeyoon nañ ko lépp Macky Sall yàq na ko Macky Sall yàq na lépp lépp lépp lépp yéene kaay gi ba tey di réew mi quotidien ñi nga xam ne ñooy opposition bi nee nañu nag Macky Sall ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax maanaam ab président la boo xam ne bu irresponsable la Macky Sall ku irresponsable la du suñuy kàddu dañuy nettali ñi nga xam na ñooy ku jëkkee nee nañu nag Macky Sall mooy coupable te nag nag Macky Sall est devenu un danger pour le Sénégal yéen kay gi di direct ñu xëy fekk fa docteur ña muy def ay révélation nee na am na malade yoo xam ne maanaam dañuy jënd li nga xam ne mooy oxygène li ñuy noyyee ñaari millions lañ koy jëndee bis bu set mooy borom doole yi yéen kay gi di l'observateur xëy duñu xibaara naan ñu en tout cas coronavirus bi que ñi nga xam ne ñoo ko am ni ñu bëree ci Ndakaaru soo muy dana ñu leen jël rek yóbbu leen ci yeneen région yi yéen kay gi di réew mi quotidien wax ci meneen mbir nag nee na lu toll ci ay centaine de tonnes soble yoo xam ne jamono ji nag ma ngi yàqu baykat nappkat yi ñi nga xam ne ñooy mbay mbayum dër jamono ji sonn nañ ba maara day taali rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk nag póotu li ñu bayoon ma ngi yàqu ay toni ton ma ngi te nag li nga xam ne moo ko waral amuñu nag ay chambre froide yoo xam ne fa la ñuy denc soble si ak pomme de terre bi ñi nga xam ne ñoo nekk póotu jamono ji soble si dañu koy wanteer wanteer wanteer yéen kaay gi nee na loole nag perte bu mag a mag la journal bi nee na producteur tamit yi nga xam na ñoo nekk kayaar ñoom tim ci ay jafe-jafe-jafe yu métte métti la ñu nekk waaye nag nee nañu seen jafe-jafe yëpp agro business bi moo ko waral ñi nga xam ne ñoo nekk jam ñaajo agro business ñi sa yëngu see jam ñaajo ñooñee ñoo yàq marché bi yéen kaay gii de la tribune xëy duñu xibaar naan askanu Sénégal jamono ji nag dañoo sonn ba maara di taali askan wi sonn lool lool lool waaye nag jamono ji askan wi sonnee dafa mel ni daal maanaam jafe-jafe askan wi daal maanaam yoonu Macky Sall nekku ci ndax nag Macky Sall mu ngi jël ab avion ab roplaan boo xam ne soixante milliards lay jar alalu askan wi Macky Sall dugg ci maanaam dingu daan daal maanaam di wër daal jamono jooju nag Sénégal yi sonn nañ ba maara di taali Sall yéen a kaay gii di Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Aminata Kanté mi nga xam ne mooy maire bu Sam Notaire moom nag dañu koy tuumal ay giraawaali ki njublang escroquerie lu toll ci six millions moo tax yóbbu nañ koo fa mbaxana doonee benn moo ne day ab député la yéen a kaay gii di Les Échos xëy xibaar naan ñu njombe gi nga xam ne moo amoon ci stade Demba Diop ba lu toll si juróom-ñett ci ay nit ñàkk ci seen bakkan ba léegi ni nag dossier bi maanaam dafa càng dafa bloqué wu ñi nga xam ne nag ñooy njabootu ñu ñàkk seen bakkan ñoom nag ñoo ngi sàkko justice def liggéeyam yéen kaay gii di réew mi quotidien nee na ay muud Moodu Moodu ay sénégalais yoo xam ne dañoo bloqué wu fi nga xam ne nag mooy Maroc ci frontière Maroc bi lu toll si ñaari téeméer ci ay sénégalais yoo xam ne maanaam ñoo ngi dund jaxanam ay jafe-jafe yu méttee méttee yéen a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Mamadou Ali Ndiaye moom nag expert la en sport de combat daan nay wax ne Balla Gaye numéro 2 jamono ji lu toll ci cent quarante kilos muscule moom la am doole loxo bi toll na ci cent quarante kilos nee na nag bu dóoree Bombardier maanaam